nek taalibe yi kilifa fofu umaraaw yi yëpp fees ba bàyyi ne gis naa lu mu defo neena dafa dem ba nga xamne bu toxtoo nak lim jeex ci xadratul ahmadiya kon kar man nako ray ci fanko ju rew googu waye nak gisul bopam mujj na sax naan mo mo man may kan man may lan la wax sax bañu jeex tak ci man man daal bu toxtoo sidna cheikh loolu jeex ci moom kon euh, euh, kon kersa dina ma dina ma dina ma rey euh, buur ba jël ko yóbbu ko beneen yoon ñu ànd dem màkka pour sax pour mu nekk taarix dëgg sax maanaam fekk na buur bu ko invité woon ak ñoom dem mu mu bàppale bàyyi ñeneen ànd moom ñu fekk ko màkka boobu ba mu fa jógee ak ñoom dem na Rome tiim na Tripoli dem na Rome def fa escale jóge fi dem Qaahira fa la armale dem Jidda fa la foofu wax multaqa al asadi wa shiblihi ndax fa la baa dajoon xaaj Abdoulaye atam ba ñaan na ko ñaan yu rëy gërëm ko ngir maal lu rëy la euh, Rome ba ñaar yëpp rek laa ciy tudd nee na dafa wecceeku xaalis muy liir yu bëri liir dafa kii nee na mu ah, naa li mu joxe woon ñu jóoral ko xaalis mu ne mu dugg taxi jël biir dëkk ba bañ eggee mu ne taxi bi ñaata déggoo wuñ mu ne taxi bi di jël di jël di dana ko lii la mu ne ah lii kay ñu déggee du xaalis benn waaye ne ko fii ku fi ñëw tey kilifa ndax bu ngaa gis pap bi pap booba woon bàyyi la ko déedéet pap bi mel ni ko koy kafe te wax na ko dëgg yëpp ne ko déet pap bee ma war a seet si di waa ji ne ko lu tax mu ne ko parce que maay kilifaam mu ne ko nooy nekk kilifaam te du jullit mu ne ko waa moom daf ne yonent yàlla Isa la nekkal man ma nekkat fi yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad mooy kilifa yonent yàlla Isa yonent yàlla moom te ko wax moo ne wallahi law anna Isa Maryam xayun ma wasiahu illa ittibaa'i yonent moo gën bés gis Seydina Omar mu amee këyit mu ne ko lii lan la mu ne ko dama romboon yahuud yi ñuy jàng dara ci tawraat mu neex ma ma toxal ko yonent ne ko xé yéen jógu moom sax ngeen di ñàkk xanaa xamoo ne Muusa ibn Imraan mu ñu wàccoon ci moom tawraat du doon dund tey sama gannaaw rek wala du baax ci moom Isaa noonu yéen maay seen wàll yéenay sama wàll alors bàyyi nañ ne ko maay kilifaam ndax ki mu fi nekkal ki mu fi nekkal mooy kilifaam mais nag waxoo ko wax bu simple boobu ah daf ne xaalu tazuurul paapa law daraani xaqan nahar wala ila bustaani حجبته بنفسه عن نفسه لو قدته عرف معنى قدسه وغاب عنه حسه وجنسه إلى آخره بابا سبحان من أخفى الشؤون حكمة لكي يباين الحظوظ الجمة من دنيا من نخدن سيتي باب بنخدن كنوزي نخبون قجانسك باب بابا بابا بدي بي بركلم آه، بول سيس لو عندي تغبيا بول سيس منكو مني مني مني نخدن كي منكو ديريك مم سمخمون سم kon waxuma luy si ma mais dafay lagg ànd ak ñu jëm ci sama tool daf may liggéeyal mu ne waaye nag muur naa ko ci xijaab goo xam ne boppam laa ko muuree du gisul boppam te kat su nangoon mu ommat ko rek suñu waxetee sa sainteté les papes googu suñ ko waxee rek mu xam ni maanaa wax jooju mel daal ko naan su ma ko ommatoon dana dem ba xam boppam su boobaa mu ne lam doon yëg sax dafay fàddu xeetam faddu mu ne waaye maa ngi sàbbaal yàlla mi nga xam ne dafa nëbb mbir yi ngir nit ñi mën a rawante ci cër yi bu ñëpp xamoon lépp ku nekk uti lépp ndeysaan demut ca pab ba bàyyi dem màkka dem bu réyéetam ndaxte aj googa moom itam ni aj njëkk bëree ay may noonu la aju ñaareel gi bëree ay may dinaa si yu ngi tuuti rek léegi su ma jógee ci tënk bi waaw xam nga gannaaw ñaari aj yooyu bàyyi aj na ay aj yu bari maa ngi fàttaliku lettre bu ko sidna Sukayri ja bindoon ba naan ko ci la budda laka min xajjaat tuqda biha alxaajaat yow mii day da nga aj aj yu bari yoo xam ci la soxla yëpp di fajoo Sukayri ak bàyyi ñaari nit la ñoo xam ne seen diggante war nañu am temps toppatoo ko waxtaan ci waaw ndax moom si Sina Sukari xamuñ ku ko jiitu ci Maroc ci tariqa bi ci jamono jamonoom ak ci xam-xam ak ci ak ci lu nekk mais moom ba mu gisee bàyyi yi daf koo gis bàyyi nuyu ko rek mu ko këyit gii dama cee caxoon cax moo xam ne ci xam-xam maa ngi ko doon bëgg a yónnee ci daara yu mag yi comme ñëw nga nag doo fi naan attaaya te tontoo ko باي نتعنا من مجاكو باي جانج أي فعل أتى بلا فاعل حقا وقد طالما بحثت عليه قل ما يعثر الذي معروف النحو عليه ولم يجده لديه ناري دو إثلا باي نفيا نجل كل مرا باي ولدت كي جانك طالما تم لسؤال جواب من لبيب الجيب السبيل إليك خبلي ñu neex ñu ah dama gis seet ko rek day la waaye bu bàyyi dafa ko waaye daf ko ñaari béy bi dugal dem ci film bi parce que beneen fànn la bàyyi na ko bàyyi na ko laaj gi ngay laaj yow mi ko laaj sax tontu nga ko ndax baatab taalama ci waxi yaaram ak baatab xallama bi nga jëfandikoo soo ko tiimee dafay mel ni faayil la te du amul faayil yow li ngay laaj tontu nga ko te bu yàgg laa fi bëggoon jar waaye booba aw ma dara lu ma yóbbuloo <laughs> bon li ma ci jublu man mooy maanaam maanaam seen diggante dafa mujj dem ba nga xam ne genn guddi googu ba nee na maa fanaan ak sukkur yi genn guddi ñii mu def mudaakara bañ ne allahu akbar ca njël bàyyi ne ma dugal nañ ca genn guddi ga lu xajut ci guddi yu bëri soo papa nee na ma am na ci benn masala bu ko bàyyi ni ci masala sàngam di di ko ko tekki di ko njegeel sama papa ba mu xam neen ba mu ximbee bàyyi na ko ah yàlla mën na mu nekk maanaam xam nga mu xam nga loolu day na war dégg nga di ko wax ci al aanu daaim waaw léegi euh, sukkeer di ko gunge mu ne pour mu dem gaar ba dellu kaasa mu ne sukkeer yi mel ni boobu mel ni ndongo yu xaal yi mu nga joxañ bàyyi ni géwél buy sangam te xam ngeen ne moom tubaarka la ma ngi naan bàyyi zaatin min an nuuri tajassamat quluha an nii jëmmi leer di jël forme ni te ko wax nettali leen ko naan ko lillahi daru abin wala dëgg bàyyi jëli jura baax alors xam nga waaja fu mu dem foog ñu xam ca position gaaña fu mu toll su kër yi xam nga ne ko yow Cheikh Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane mii dund dund en chair et os yow a ah. Cheikh Sukayri lettre yëpp ngi fii ci mbindam Sukayri nee na ko benn bés jot naa fa lettre bi yow Cheikh Ibrahim mi fasul xat mi di firni kët mi gis naa ko firil na ma lu ma jaaxaloon dama doon woy benn téere ba am ci juróom-ñaari junne béyti toog toog mënatuma wax benn béyti ma naan lii lan la lii lan la ba sa lettre bi ñëw xam naa ko nag يبرئ أن أمن ويتخم بن بن بما يسمى شاعر يتجي دفع توخو كيو ما نقدر من غمان وحيني لخم غم وهنا بلكو وإني أرى شيختي لي خاتما وأنت الذي قد صرت في الخاتم الفصى ما لي جيت شيخ أحمد يعني مدينة سمن داي جارب وخمنا جارب أم جنلا جنلا يا يا جنبا te kon nag macha allah nee na ko xalaalakal jawwu min kulli muzaaxin bés bii ma lay bind tey kenn kuy région yoo nekkati ci jaww ji moo ko ko laata yi yi may wax ni man dama ko amee ko mënee am am na ku ma ko jox gannaaw gi laa am rasaay si kër yëpp ci ci ay mujjal la nga bàyyi bi la wax mooy ajal ñaaral ga ci kër yi nag moo ko newoon da nga amee aj yu bëri yoo xam ne ci la soxla yi fajoo est ce que loolu am na loolu am na ji am na ndaxte li ngay dégg yépp ci Nigéria bañ commencé wax kënu kënu ba réew mi yépp mu ji boo jógee fii ba caat macha allah benn mama la taahiru baw ci aalim la nitu alquran la muqaddam la nee na bi ma njëkkee dem Nigéria jógee ci bàyyi dama doon jéem a bind muqaddam yi nga xam ne ñoom bàyyi leen jox wala ku bàyyi joxe leen jox ci benn wilaya ci benn ci région la sax boobu wilaya yi amagul mu ne ma bind ñaari junni muqaddam ji rek ci fab bàyyi ñaari junni muqaddam te kooku benn wilaya rek la kon nag tukki mooma am na njëriñ ndax fa la gisee buur boobu ca Madinatul Munawwara retenez bien ca Madinatul Munawwara ndax bàyyi bul juumaan dafa jiitaloon ak ziyaara ziyaara la jiital comme ni Sénégal yi def tey ba mu demee benn bés la gisanteeg buur boobu dafa am daraja rafet te nag mën a jàng doon ko jub doon ko am ittee bëggoon na falu falu na te nee dama ko doon ñaan yàlla ndax du ko fa bàyyi di buur rek ngay buur dama bëggoon dem Makka ndax kenn message yi ci buuri kanu yi dégg naa ko te bëgg naa daje ku doon ci Ahmad Tijaani bu bay salal ma sama wér bi la bàyyi moo ma wax riwaaya bi min fuusi ila usuni wallahi la ilaha illa allah xam nga ci rexla bi daal bind ci tafaasir dafa ne dafa ne suma xarit diw sutu imam Shafii moo bi sax moo wax sultaan boobu ne maa ngi fi wan ko fi mu ne mu ñëw fekk lu ci bi foofu rek la bind bi yem après nag ba mu jëflanteeg moom bàyyi ne ne summa asbaha sultaanu xaadimana baqiyata ayaamil ne sultaan bi nag nekk suñu bëkk néeg nag indi na si yëpp ci aj gi nga fàttali ko yow ci njëlbéen ga ca Kousi ba muy tagg yonent ba ne ko xadimuka maxdumul muluki wala faxra sa dama bëgg sa bëkk néeg bii man dem ba ay buur di ko liggéeyal te su boobaa di ko tiitaroo parce que dund li muy wut li muy wut passé na loolu right kooku nag ba baay mu ne man moo ko ne lii laa doon sàkku yaa ci def teg naa ko defe naa yow la bàyyi wekkiwu ko bàyyi wekkiwu ko def nañ yokket rek ci raw rawda bi foofu mu nekk wër ba fi ñuy jaare yonent bi booba nit ñi bëriwuñ te itam dàqatiñ kenn booba bàyyi tëj di dem sultaan boobu fi mu nekk kënu entre parenthèse kënu fa laa jógee semaine passée kënu léegi ña dëkk buñ ñu koy compter jege nañ six millions ci capital bi alors kënu woowu nag alors ba ba bàyyi beesalal ko beesalal ñeneen may ñi dugg wér ñu ànd ci mawkibul xaj buur bi nag jógee Medina ba dem Makka ba dem minan ba dem musdalifa ba dem arafat ba dégg si ba dem arafat ba ñëw musdalifa ba dem si minan ba ñëwaat makka bañ tàggoo diggante boobu mun ngaa mun ngaa nappalee lan la fi bàyyi dafa guub bañu na ne mu ne ko daal dugg naa nga ñëw fa moo tax mu demoon fa dem ba itam moo déclenché mouvement boobu nga xam ne baax na ci diine ji baax na ci tarixa bi baax na ci xam-xam baax na ci économie baax na ci brassage social baax tax na fi mu nekk nii nit ci Nigéria ci turu baay loo xam ne fukki diplomate mënuñ ko waaw kon nag euh, tukki moomu ci bàkk waaye nag du rek moo ci xew loolu foofu rek la bàyyi dem ndax bàyyi gannaaw gi am na at moo xam ne Jamal Abdou Nasser moo ko invité booba ñaari réew yi benn la Syrie ak Égypte république arabe yi nii lañ ko daan wax booba invitation Cheikh Abdoulaye délégation bi ñu jiite woon maag moom ak Cheikh Babali ñun ñoo indiwaale invitation boobu 60 bàyyi uy ji ko 61 fekk Abdul Karim Qasim invité na ko continent Irak diggante bi romb na dem na Beyrouth yam dafa ñu histoire muy tukki moo xam ne lu nekk ca xew tukki mooma bam ne cëpp xaaxira musuma gis nit ku dul chef d' état booba ah musuma ko gis nga wàcc ci aéroport nga naan la tapis rouge teg ay fleur mu wër ko nga di ci dox ni ñuy dox ci pegg bi bàyyi ko def ci akra ak ci xaaxira bat bu ñu xam di buy dox oto bi bi bi bi policier yi nekk di ubbi yoon wi am na bu ko gën a sori ca kanam di taxawal oto yi ba départ na xaaxira ba escalier yi gisuma benn oto buy daw xam ne yàllaa ñu doon won rek ne xam nga loolu ñu neex ma def ko wax dañu ko yóoki alors tukki mooma ñun la ñu ci gën a neex te gis naa ne moo gën a neex bàyyi mooy bàyyi dafa dugg jaamiwul azhar ne fii laay njëkk a jullee jumaa ji ma njëkk a julli ci xaaxira ndax baab la bàyyi dooru dugg xaaxira ndax ba muy dem màkka nee na wàcc na por saïd di taawi udxulu misran fa inna lakum ma saaltum dal eh, na na ci dem tour sina ci aja mu dëkk ga yand fa ci montagne ba ba ca ngoon rek moom mu ñëna bu ne al qurani bi tural yowma surtu muqima wa fustu bi sirrin jaa fihi kalima maa ngi nii yand tour sina moo ne mbootam moussa ma ko jot naa mhm. ko simple na mais na muy nëbbu nëbbu am nañu ko xam ne bàyyi nee na ma bi ñu déparé déedéet ñëpp la ko wax ci raxla bi nee na bi ñu déparé Tunis ci bato bi jëm ci Port Saïd dañuy daw ñaar benn fan bu ci ëllëg benn ci yàlla bu nekk ci gaal gi xooku ba yàgg mu ne ko yow daal ku ànd ak yow ci ci bato du xam luy géej ka ënnal baxra la ñuy tun ba ku ko wax la bàyyi mu ne ko yow ku ànd ak yow tukki du xam géej ñu mel ni géej gi dafa dee tekk rek ñuy dox nànk day sax bàyyi melal na ko ci balaa xam nga nee na wal baxru rahun wal jawwu sahun waa ji rek moo ko ne yow day ko ànd ak yow ci bato du xam géej géej jàng mel ni ku dee du géej rek du géej rek ay ar parenthèse yu ma ubbi la xamuma kañ la waxtaan yu jeex gis nga def na ku ci jaww ji maam tiyaani nee na ma dañu dañu nekk ci Dakota yooyu ci année cinquante yi ñuy dem Makka xamu ñuy dem ci ban diggante jaww ji naqari من يقول بدي اسال شن شهادة يا الله منا ما اجين فوفي تنين او ماما اوكو وي نمر سلمة تنين او ماما اوكو ما يونين تدوخل نتعرف الى الله في الرخاي يعرفكم شدتي بدرخه وقلنا لك فكان دنج خمي سبات كي بدرخه ني خمكو مي تيرك يا ربي نان ملائكه نان كي taarraf ilallahi fi raxaay yaarifkum si dëgg maam Dia nee na taalube Bustaami ya bàyyi na leen ñoom itam ñu appliqué yaa Aba Yazid yàlla mi moom géej gi daral ko maam Dia ni ñun itam ñu ne yaa Cheikh Ibrahima yàlla moom jaww jooju bàyyi nee na ma doon na jàng benn bés ci avion di jàng alxuraan benn tubaab ne ñokket fa mu toogoon ñëw ba tolloog bàyyi sukk. seug ba bay jang ba faré mu delu tok fam togon ñuul bay waxu ko may kan bay la ju ko yay kan xana lol moy man yalla sakhara samita lah, wal nafiqa lah. lu la ko degena bon alors yoy nak ci tukki yi moy yu ndaw yi mu ne fofu ci bëgnet mu na wara yalla defal nako fa dal way bu ñew ne daf koy tapage ci xam xam ak ci ak wahabiyatu indi ni ñi wax la mu ne waaj ne ko yow hal anta mimman yusawidu eh, yow gan gi borom xam-xam bi est-ce que yow ci ñuy wax Seydina Muhammad nga bokk bàyyi ne ko ah man loolu teel na ci man man ca Maalik laay commencé ba ci ab Abdullah ibn Umar ñëpp sayidi sayidi doon wax Seydina Muhammad waaye ne ko waa foo ko teg bàyyi ne ko fu ma ko teg lu may yow da da nga foog ne dafa aay waaye ne ko ah mu ko ah yàlla dina jëfandikoo lu aay ñëpp ñu ko jëfandikoo. القران من هو دابور القران جاك هو سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين لولو سيد ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين او طائفتين كبيرتين وهم الانصار قوموا الى سيدكم لا دي واخ بواج نك واج كون كون كون لول اوي من نك ما جار فوق اي اك خمنا سي سوتو غا يوي waaye ñu naan ma ñun li leen di layee ñun li leen di yeyee mooy yonent ci boppam moo ñu jàngal salaatu doo ko allahumma salli ala sayyidina muhammad yi mën ko dee xanaa kon ko ala sayyidikum lay wax kay yonent mooy muhammad wax du wax kay bus gaa dégg président bu naan mon mon excellence ko ko dégg ma majesté déedéet yow yaay xam ne sayyidu la waa ji itam comme la maamam waxoon bàyyi mu ne ah wax na ko seetlu ma ko woon ma ne ko doo seetlu dara ah <laughs> yonent wax boobu daf ne dañ ko ne yaa rasulallah xam nañ ni ñu defee salaamu balaa ji wàccee sallu alayhi wa sallimu xam nañ ñu ngi def ñu ñu defee salaamu nu ñu jullee nag mu ne wax ne allahumma salli ala muhammadin ma ne ko mooy sayidu mutawaadiin moom mooy muhammadu yow nag yaay xam ne mooy sa sayid mooy sayid la walin wa axiri wañ ma loolu de seetlu ma ko toujours ñu mel noonu kon nag aj googa moom terewul bàyyi dellu na bàyyi tukki na gis nga bàyyi tukkee ni am na ci gannaaw bu mu jógee iraq ba muy dem iraq xam nga fu mu jaar ba muy ba muy dem ba muy dem kii kii fi ma waxoon mais ba muy dem ñu invité ko fi pour mu dem Pakistan pour dem pour mu dem Hindu bàyyi jaar Paris jaar Bruxelles jaar London ñëwaat Bruxelles dem Qahira dem Beyrouth dem Karachi jaar fa rek bëgg a yi ne ko doo demee noonu téye ko fa ñeenti fan defal ko fa fukki réflexion ak ñaar ci ñeenti fan alors yooyu war ngeen koo yëg moo tax bàyyi ne karaas yi biyaa xalabtu ahla mawiddati humu nasaru diina nabii fi aala ñi ma sopp bàyyi naa leen fa te ña ngay dimbale diina ji ci ay jëf waxuma ay wax lu nekk war nañ ko fa ci teraanga mais mu continuer tim siam dem Hong Kong jóge fa dugg Chine jóge ko ca sud Canton dem Pékin ci bisu lëmm bàyyi ci woppam moo ñu wax ca woyoon wa ne wa kawlaxu tadcu qad abanta rixaala kawlax naan ma sori nga nag en effet sori na mais bàyyi dem na fa ba wàññeeku man am na ñu ma gis benn benn bàyyi itteewutoon gis maaw chitan xamu lu tax ma mission yi laay la bëggoon a gis te gis na ko maawo nga woon ci Shanghai boo doon wax léegi jox la avion nga dem mun na mun na notion yi laay mës naa dégg daal ci taawu guerre bi benn journal mës naa koy jàng ñu ne ñu ngi naan julli lam de ñun ñu toog a Soyin laay mi nekkoon président du conseil 750 millions chinois yi booba moom kenn lim ñu laaj yépp ci Afrique fi julli ñu nekk fi ñu gën a bari la est-ce que daf doon plan pour xeex leen wala dafa am sentiment ci l'islam allahu alam seetlu naa leen baay ba ñu tàggoo sooy laay xam nga lu mu ko jox ci kado sooy laay sëñ Mamoud deux mille deux mille pounds deux politique la bëggoon te ñun doxuñ politique ñu ñëw ba canton bi ñuy wàññeeku ñu ne ñu bàmmeel bii saxaabi yu bu tudd saadu la bàyyi xoolu tarix gëstuwu ko sax ñi dem rek dugg jàkk ji yàgg la ju tuuti ñu xam ne ñu ne bu ko kenn soppi bàyyi nuyu ko ni ngeen ko jàngee alayka salaam allahi ya saadu innahu ataaka xifaafun yarjicuuna si qaala waaw ya. mu ne ko yaa mel nii yaa songoon nii mais loo am sa am ci ndam sa barkeb sa xaay di dama yónnee al muhammad tey nag ñun ñii ni wax ju bii taxaw ci sa kanam ñun ñett mu ne ko ñi ngi ñëw fekk suñ dafa ka yaa ngi woyof dara nekku ci dañoo bëgg ne bu ñu ñibi mu diis gan na tawassul dafa am de bul dégg kenn ku lay wax ngay weral ci tawassul yàlla moo ne wabtagu ilayhi al wasilata yonent wax ci lim jox ummatu bi yépp di ko kii te wasila am na sax man yu ma ci def ñemewuma ko wax ci mbooloo mi lu am solo la bàyyi ñu jaar mayru jaaraat Kaayra ñëw wàcc Dakar amuñ dara deux mille yi bàyyi daf ko jaay ay cadeau ci Hong Kong ñu ngi indiwaale tuuti rek bi ñu cëpp ndakaaru président ba fa nekkoon sengor yegg na ñu bisi ne mu ne daf ko bëggoon a gis balaa yegg kawlak ñu dem bureau sengor maa ngi nii mo rab ndaa yi nii akoma gan bàyyi dugg ci biir sengor boobu ñu ubbi bunt bi ne kuy secrétaire sëriñ bi comme ah non ci mel ko j'en fais partie man di ci laa bokk mu ne ma kaay ma yow mu ne ma dama lay expliquer tubaab lay làkk de euh, dama bëgg a jox sëriñ bi 30 millions man maa ko ko dimbalee mais dafay mel ni bor ñu ci kaw man maa koy fay fekk fukki at at mu jot ma fay ñetti millions mun naa wax du dëgg ah. waaye man booba laa xool bàyyi ne ko attaque xifaafun yarjiuna siqaala ay la ay la chef chef du gouvernement wu 750 millions nga nekk ganam mu jox la. Euh, maana un million cinq cent mille booba nga jaar nga jaar ci yonent ci saaba bi ne ko dama bëgg su may yegg Kaolack na gafa gi diis nga jaar nga jaar Dakar Dakar soo nga ne boobu muutuñ sax six million ah, président oola laajoo ko ko jox la trente millions ma ne bàyyi mu ngoog attaqué xifaafu yarjiuna si qaala laysa mu muñ mu jëm ko rafet googu déedéet gis nga ba bàyyi jaaree Bruxelles dama koy répété dama koy répété ba mu jaaree Bruxelles Pape Djibril Guèye moo ko doon ganale ngan gu neex ab tubaab déggu ko boo xam ne dafa xamoon bay fii bi mu nekkee commandant ba mu bay bàyyi mu ñëw nuyu si ko dal ci kaw bàyyi ne ko man ma dégg ne da nga deewoon ci accident oto ci Niger bàyyi nag daal di koy jël sérieux ne Ousmane Kébé jarbaatu Djibril Guèye jalla ma nekko alayhi ah, ne ko waxal waxal kii ne ko bés dana jot ma faatu kullu nafsin zaa'iqatul mawt وينك سخرج بودك اللي دانا أتناري قبل ندمان من دنا دم مور نمر دوما ديك أكسيدا خمسة لو يجر نينتي خمسة لو بني وحشين ديجل كده باري في كابي وجم بشين وخلا لو تشلو ديجل خمسة لو نور بمن كروك لا دونا يب أبي أو بني بني كيش أبي أو مجي كسام ميدان جي سنة بجي سيونان تنان صنائع المعروف تقي مصارع السوئي mu nekk fab zahir nit koo xam ne lu baax rek ngay defal nit ñi doo dégg xat mukk day zahir ak ci koy weddi bon bàyyi Maroc daf ko ziare ay yoon Algérie mu ziare ko aw yoon Tunis mu ziare ko aw yoon gis nga céej Algérie war naa koo wax gëstukat yeeg étudiant yeeg ñi xam ne bàyyi xutbu bi mooy bàyyi itam encyclopédie bi arab du langam daf koo jàng ngir alquran ba ñuy ba ñuy waxtaanee Bouteflika mii nekk te président moo doon affaire étrangère booba noonu rek benn téléphone ñëw rek ndekk président lay waxal bu ma jël ndekk daf ne ko na ngeen daje tey yéen conseil islamique supérieur daje extraordinaire seen suñ gan gi ngeen recevoir ko ngeen élire ko membre ci seen seen biir ñu ngi def ko ci ngoon ga ñu nekk fa gaa ñi di ko réceptionné di wax ci moom lu baax ba may jël parole nag ba mu daanee benn professeur bu nekkoon directeur rajo nekkoon lu rek ne may leen ma man di jommi na ñu mu ne man jàng ak jàngale sama liggéey mais gan gii boo xam ne li mu gàtt gàtt dégg naa ci moom ñaari expression yoo xam ne ba may commencé jàng ba tey mosuma ko dégg xam nga loolu itam may la ah may la kon nag mu mu. Maroc bay ci Maroc dafa juk fas ndeke amna gaay yi nek ci zawiya ba ndeke fune amna am wujji ndeke amna ño xamne xam dañu contre dañu contre muqaddam ba benn waay ne ma biñ ne Cheikh Ibrahim dara fi jaar waji waji waa ji xulóog moom ko nan ah tala afna bil aqtab ma sha Allah mi ngi mi ngi bëgg nak mu ne ko way way gëj nañoo gis xutbu waay am khutbu gëj na fi maanaam pour merloo ko muqaddam bi <laughs> waaw waaye li ma ci intéressé mooy xutbu bi dégg nga wax dem na Misra gannaaw gi voyage scientifique dañ ko invité ne ko dañuy créer académie de recherche islamique majmaal buxuus islamia mu dem yóbbaale ma d'ailleurs sax ke jóge woon Guinée di ministre affaire u diine dafa bokkee bay avion nekk rexla moom itam ñu ngi bind rexla بام دا ليه ليه مكو فمو يتبه بايك باكسي كي منسخ نان ومعه كاتبه الخصوصي محمود جوب مفسر النصوصي منك اه واي واي واي واي ما ما ما, ما رابي اربعات ببعيد واجب لكن موي كباي سي دون تيرخ لا كونا كيبا موي تج ليغي رك دياغ دينا دينا تي نيو دغ كون نك رحله قم قم بان ديمي با علماء ييب داجي تي عالم العربي با باكستان عالم الاسلامي بس بيجي اوبي li ñuy wax discours d'usage ki wax ci turu mboolem gaa yi bàyyi lañ ko def te dañ koo bett mu def fa xutba gu amul morom daf ko dicté ñu bind ko mu mu mu dir ko mu ngi ci majalatul azhar nekk fa nag lépp luñ fa wax rek mu dugal ci xalaatam am na ci boo xam ne yàgg naa ko nettali duma ci dellu si mais keroog wax na fa dëgg yoo xam ne ka jógewoon trabu su lubnaan ba ñuy génn def ko ne ah sëriñ bi tey de moom dañ ko bëggoon a soppi politique yaa ko delloo ci sharia tey daal bu yàlla doon bëggal nit ñi yow rek a ciy mucc yooyu du tuuti tuutiwul dégg nga léegi nag tukki yooyu yépp jeexalul tukki bàyyi mais euh, mën nañ ci taxaw noonu rek pour junju lii ma ne mbooleem tukki yooyu nag dafa dafa am ay ay laqataat yu ci nekk laqataar xam nga boo tiiree léegi waa ji bu tiiree photo loolu laqata lañ koy tuddee daf ci bëri mais tuuti lañ ciy jukki jëlal makka bàyyi ñes ca makka ci ajam gu njëkk gi mu ngi am fanweeri at ak juróom-ñaar soo amee imagination mën nga koo xalaat mu meloon moo ñu nekk li yii war nañ koo xam te buñ ko fàtte benn yàlla dafa yàgg a ay jaam yi ci làmmiñu yeneen jaam su amee su amul fulla rek ku mag ki du ko nettali bàyyi ko nettali nee na bés dama ñëw rek taxaw nii rek benn waaye ñëw nuyu ma dama de yàlla xamal na ma ne doon ngawal liw bu nekkoon ca Maghrib ca Faas yàlla ma ko xamal te jox na ci tegtal boo yow yaa ko mën a saxal wala nga mën koo weddi bàyyi na ko lan mu ne ko yàlla xamal na ma ne ba nga sosoo ba fii may waxee yow mu soo naan attaaye attaay bàyyi na ko déedéet du may naan attaay mu ne ko boo ñibbee da nga ko naan ba ba ngay génn àddina dootoo ko bàyyi mooy sama tegtal lool lool lool